jafe-jafe ndox mi fi amoon euh, gaa nag ndox amoon na fi amoon na fi jafe-jafe amoon na fi fi lu lu jege woon wee jour ca kanam loolu moom amoon na fi mais nag gis nañ ni semaine bii ñu ne moom loolu mi ngi deñ bu baax a baax ndax robinet yi mi ngi xel ca nit ñi bassin bii nga xam ne Moustapha Dieng doon ñu fa may ndox nit ñi di fi root si foofu moom gisatuma fi kenn ku fi root see moo lay wax ne robinet bi robinet kon mi ngi xel jafe-jafe ndox bi dafa amoon mais nag bi bi ci woo sëñ Moussa Tim moo waxoon na ni ñoom amoon na ni paan waaye li ci ëpp mooy courant ca xam na ni gis na nit boobu courant moom euh, amoon na manque ci biir dëkk bi ndax kuppiir yu bari woon waaye fii ñu toll nii nii nii bu continuer waa dëgg yàlla dana mel ni euh, loolu lu nuy fàtte lay doon ndax jafe-jafe yooyu moom mi ngi wàññi ko waaye Darou Tanzil moom amatuñ fi jafe-jafe ndox yoo xam ne si nit ñi wax si nañu ko waaw donte bu fi amee man kenn waxatuma ko ca gis nañ ne robinet yi doon xam ne xeeliwuñu woon depuis euh, maanaam mois ne ci kanam semaine bi moom ñi ngi xel waaw waaw loolu itam ñi ngi bëgg euh, maanaam ñoom ñu gën ñu cee jàppale ndax màggal gi itam xam nga moom nit ñi dañuy yokk nii mu mel itam nag bu fekkee ne changé wut mën naa bu ndox bi ñëwee moom balaa màggal gi nit ñi daan mën a am ay bassin yu ñu def ndox waaye nag bëgguñu tim mu dellu ginnaaw ndax bu delloo ginnaaw itam lu mu néew néew dana fekk nit ñi ñëw ca jafe-jafe yi day yokk waaw man nag gis nga robinet bi nii nii mi ngi xel mais depuis weer suur ca kanam nii defut woon nii waate lii moom kenn du ko werante xam nga waaw noonu nag moo ci am mooy lii moom mi ngi situation ndox mi moom mi ngi wàññi ko fii moom waa li nag waaw waaw lii moom normalement bu ku continuer màggal gi mën na noo bañ am jafe-jafey ndox loolu moom ñu ngi koy